am nañ mbégte bu baax mbokk yi ak contentement bu rëy di nuy képp koo xam ni yaa ngi suivre Zarak Vision mbokk yi comme ni ñu koy defee saa su ne tey ñu ñëw fii nga xamante ni moom mooy école de lutte 1 Falaye Baldé 1 certifié le grand champion Boy Jules wax dëgg yàlla mënoon wàcc combat ca diggante mu Bécaye combat bi yàqu woon ci ay manifestation yoo xamante ne amoon na fi wala sax tolluwaayu réew mi taxoon na combat yi bare bare bari fi mu ne yàqu na euh, làmb nag am na ci journée yu mu jëm journée yooyu làmb jëm euh, bari na euh, le 9 juillet yaakaar naa ne poids boo jëlee tam moom tam war naa bëri ak Nandi Fall ba ci ay combat yu bari yoo xam toftalu na muy Giro Seras Abu Ndiasse di ñaan wax yàlla combat yooyu yëpp am incha allah waaye mbokk yi dama seet si champion bi waxtaan ak moom ci combat boobu nga xam ni moo waroon a am ta amul waxtaan ak moom tamit ci carrière Euh, ak problème yi nga xamne jamono ji mo am ci lamb dama koy bégg rek bàyyi ko mu nuyoog mbokki internet ñu dugg ci waxtaan bi bur ma lay bégg bu baax. wa de lo bégg Mohamed ñu lay siyaar bu ran ah. waaw di bégg aduna ah, di santat bu baax di wax jere jërëjëf Serigne Touba jere jërëjëf Serigne Touba jere jërëjëf Serigne Touba ñu sant wa pigne bu baax baax wa di sant wa pigne bu baax di ñaan la ñepp jam ha ah, di sant sama Serigne Serigne Cheikh Fall Mbor ko ñaanal jàmm di sant suma ay bu baax di ko santat bu baax di ko santat bu baax baax baax di sant suma gaay yëpp suma staff ko ci mel ni Djili Diouf ara falu asma ñëpp ah mor fal bëggee di ko bëggee bu baax waaw maa ngi sant di sant fi nga ma fekk tay suma écrit suma lepp ah di sant sunu coach Jules Balé sunu papa sunu lepp di ko ñaanal jamm ak gudd fan ah di sant yalla bu baax wa tol way lamb no ko gisee jamono ju deena war waar waaw affaire mom moom sant yàlla rek ah parce que am na loo xam mbir yalla la adna mom mbiri sunu borom la quoi moy xol wonex rek mu doxale ko tol te yakarna lepp lu mu def rek da gën ah kon nañu sant yàlla bu baax. lamb dañ ko xamé won manam tay chaque dimanche rek wala chaque samedi sax lamb amna na Mar wala lamb amna na arène Me mais fimné mu ne sax la gars teji pour lamb am fa mais légui lamb sax dem na ba ñin manam ñi nga xamanté ñoo wara bëré bëré wuñ comme baye di reporter, ak yu mel noonu ba sax so combat bi nga waroon a bëri ak Bécaye. waaw loolu moom la rek <laughs> wa la rek amna lo xamné ni mom bu amé rek dañuy sant yalla comme ko lu musta am bu amé mom dañuy sant yalla rek waaw amaana tolluwaayu réew mi la woon ni mu demee la woon dañuy am compréhension bu baax a baax a peut-être bu loolu jeexee après dañuy nekkaat ci leneen. Uh-huh. sa combat ak Bécaye bi la uh, wooyee ñu la combat boobu dafa reporté wu jour boobu nag nga ko nga doon waaj combat bi nag uh, fere ci ay moyens yu bari. non non métti na moom vraiment waaw ah, parce que entraînement yi moom waaw ah, loolu métti trop ci wàllu moyen beeg lépp métti woon trop trop mais waaw def nañ ci lu ci war lépp. sunu borom moo ant moo nanguwul ne day am la diis comme que amul moom lañuy sant yàlla bu baax wax dëgg yàlla métti na may sant yàlla daal bu baax. naka nga dundee méthode bi ak ak moyen ci moyen ci perte euh, mu ci entraînement beeg ci lépp loo xam ne tey perte nga ko ci moyen ndax wax dëgg yàlla mbër mbër bu mbër mu surtout mbër mu ndaw bu ko combat dina am ay ay jafe-jafe yoo xam ne dina ko jànkoonteel yan jafe-jafe nga jànkoonteel ci combat bu non loolu moom aw ma maanaam yenn coono yu bari sax du ma ko yëg ak sama booy yi comprendre nga ñooy daje seen si jàpp bu bari bu baax a baax ku ci mel ne ay Aliou Thioune ah leen maa ngi bu baax a baax moom da ciy jàpp bu baax comprendre ku ci mel ne ay euh, Mouhamadul Bachir waaw Mouhamadul Bachir moom dama koy ñaanal jàmm ku nit ku baax barki maam Seydou Fall di ko ñaanal tawféex bu baax a baax ñu ci jàpp bari nañ ñu ci jàpp dañ ciy jàpp comme waaw mais dañuy sant yàlla rek xam ne sunu borom moo ko bëggee nii. ñaaw jàpp nañ ni lim ñu xañ ni mu ñu dencal ko dàq waaw kon dañuy sant yàlla metti na trop waaw ci wàllu moyen beeg lépp mais sant yàlla rek comme que gars yi ñoo ñu ko joxoon ñu ciy jàpp di jël seen xaalis di ko ci def waaw bu ñuy masawu ñoom laay masawu rek waaw. ndax pare woon nga physiquement maanaam état bi nga yoroon ndax baax na pour nga jëflanteeg jour boobu ak Bécaye. non man pare woon naa waaw man Bozil ku xam xam ne Bozil moom waaw toujours pare la waroon tudd. Eh, bu dee waaw bu dee làmb ji rek waaw wax dëgg yàlla waaw yàlla suturaaloon na ma ba pare moom vraiment aw ma lenn lu ma ci doon tiit wala dara billaa walaay waaw pare woon naa moom. xamoon nga mbëri mi ngi bëri muy Bécaye. waaw Bécaye faa ma xam ko waaw dama ko bëgg a daan moo tax faa ma xam kuy Bécaye champion lan daanaan la waaw macha allah yàlla ko yàlla defal jàmm. Eh. lo koy lo koy wax mom tam yaakaar lo am ci nak rek mom am nako ak promoteur wa non mais wax deug yalla man mom dama japp ne ma gën son ci combat bi wa nañ ko ñaanal jàmm rek wa mom xam na ne làmb di metti na moom xam na loolu kon ñu koy wax dara nañ ko ñaanal jàmm rek. bo ba léegi yaa ngi déggante ak promoteur wa ñu ngi deggo ha ah. wa ñu ngi deggo ak sun staff ñep ñu ngi déggante ñu ngi wajal tamit. le 20 dal lañ ñu wax août. le 20 août. mom lañ ñu wax waaw. mais loolu na tombé ak nawet bi de. waaw mais man daaw 14 août laa bëre. daaw bëri naa 14 août. am na solo ñu ñëw ci euh, euh, euh, carrière bi ñaata combat nga def jamono ji. est-ce que defuma 11 combats. Hmm. def ah 11. ñaata victoire waaw dañuy sant yàlla bu baax waaw. di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla. kan ak la daan Maam Mor bu Faas. Siteu bu Saalum Cheikh Super jamono. ok champion ñoo la daan de. ay ah, mbor la ay ndaanaan la ya na yàlla jàppale ya na ya yàlla suturaal. defal leen jàmm ñoom waaw nah, ya, ay Baye lañ lañu. Ya. tam nga lo ci jàng tey bu baax daal. wa bu baax moo ma indi fi ma nek tay moo ma indi fi tay kon ma leen taw ah, ma maa leen di bu baax waaw. Hmm. ani kilifa gu magi Ama wala ah, waaw waaw señ bi mu ngi fi. <laughs> Oh, mooy sëñ bi. coow li bari na ci mom de 5 ans yum tok bari wuko ko gri Bordeaux yakarna ne combat bobu ñaar yoon muy reporté wu promoteur bi sax mo ci ëpp nakar xana ndax mom fi mu comme journée yum teggu ci bari dafa reporté wu. waaw loolu non loolu musul am ci lamb manam comme Ama Baldé ni tay ni melni tok 5 ans bari wu lamb yow rek lay tuddu musul am ci lamb waaw koku mom bay fa la affaire yi day metti ci ko dem mais. waaw ah, day sant quoi moom moom moom Baay Faal la wax dëgg yàlla waaw ah, ñun mënuñu sax di wax ci moom yenn wax yi parce que xam nañ ko xam nañ li muy dund bu baax waaw ah, dañ koy ñaanal jàmm rek yee dégg naa ci population bi ñenn ci ñenn ci population bi xëy na sax ay fan sam lañ ñu naan ko pour mu génn réew mi làmb kese maanaam làmb kese du du du kii mënu may li nga li nga bëgg mu génn réew mi dem dem dem ay États-Unis yu mooy yu mel noonu yeggali foofu métier. maanaam mu am foofu sax métier boo xam ne tey comme ñu ko gars yi yu bari defee ay fëgal laa gis nañu ay Pape Mor Lo comme ñooñu ndax yow sax xalaat loolu la. waaw kooku dafa doylu kooku moom li mu waram yàlla moo koy may dëgg na gis-gis yooyu rafet na trop man vraiment nice na lool lool lool. mais ama moom ko koo xam ne maanaam mu ñëw rek day xam ne yàlla la. mu ñëw rek day xam ne yàlla la yàlla mu ngi koy suturaal. waaw nañ ko ñaanal jàmm rek noonu la demee waaw. cinq toog ndax du ko du ko du maanaam du sooxe carrière am cinq toog bëriwul compétirul. toog cinq ans bëriwul am ñaari combat mu yàqu ba léegi yaa ngi waajal non góob ma ne mu parce que bu fekkoon beneen mbër la tey ba ko kon fay na bu bu fekkoon mbër la ba fay na waaw. a fay ama ama ama yow ama tey jii moom moo tee réew askan wi moom lañ bëgg. billaahi yi moom la ñuy topp de am rek la ñuy topp barki maam Seera mm-hmm. maanaam lépp moom moom chaque jour boo ñëwee ci li war a nekk da nga ko ciy fekk chaque jour. kon moom amul muy perte wala dara xale la daa nekk ci yoonam di dem suñu borom mooy dogal nit ki des fois nga bëgg dara te doo ko am. loolu yàlla la. des yàlla sax mën na laa jox loo xam ne bëggoo ko woon kon da ngay sant yàlla. Mm-hmm. waaw yàlla mooy dogal. ay jaam lañ rek dañuy sabablu. Hmm. keroog Modou Lo toog na 2S euh, am ay kàddu yu mu jëmale ci yéen wala sax yu mu jëmale ci kilifa yoo xam ni ñoo yor Ama Baldé euh, bokk na ci ay Abdou Bakhoum ak ñoom Boy Zulak ñoom kii euh, Père Zulak ba ci ba ci ba ci ba ci Pape Sarr sax xëy na Pape sax fi mu ne moo génn ak Abdou Bakhoum hmm, coow yooyu am seen diggante ak Modou ndax nga ko jàngatee wu. non man moom wax dëgg yàlla mënu ma di tontu koo xam ne noonu amul amul respect ci nit. waaw ah, Modou amul respect Modou la. parce que mënoo fekk gi deen koy deen koy jiinante. non moom moom dof la li tax man la dof la maanaam dëgg du rombi nopp te li may wax nii maanaam bu nit dégg dina xam ne kii mu wax dëgg la du kaadu dara Modou bu nekkoon nit ak moom fi mu toll ci làmb kilifa gi mu doon. maanaam waru yëkkati yenn kàddu yi di ko teg ci ay kilifa yoo xam ne ni am nañ ay doom am nañ njaboot comprendre nga am na loo xam ne Modou loolu waru sax yow nga koy def comprendre nga. moom mi maanaam nu ñu naan ama amul staff moom moo amul staff parce que ama doo ko dégg ci lu ñaaw doo ko dégg ci lu ñaax fayda doo ko dégg mu wax naka sudul noonu te doo ko dégg mu wax ay kilifa tudd wax leen tudd lu ñaaw teg ko seen der musul am am musu ko def comprendre nga bu a waaw kon moom dama naan moom tey jii moom moo amul staff waaw parce que moom lu muy dund noonu maanaam nag yi sax defutuñ ko. mais staff staff moo du gis ñu kenn koo xam ne day tontanteeg Ama Baldé xëy na sax estafu Ama ñu gis ay Abdou bakum ñoo xam ne mën nañ ko papa Modou muy wax ak ñoom. déggoo man la man Modou Lo nawloo ma ko parce que man tey jii Modou Lo bu am doon dund tey man du ma lu ñaaw di ko teg ci deram maanaam ñu toog di wax di tudd naan ay ñu wala dara ñooñu mën nañ ko papa ay Ama amul estaf Ama doo ko dégg mu wax lu ñaaw doo ko dégg mu wax lu bon moom moo amul estaf wala bok ay nak ñoo nek ci ginaawum ay nag même. waaw manam kaddu yu am na wax yo xamne da ko wara di rafetal quoi bokay wax man mënuloo nawloo ma ko barki sayyidina muhammad wa nawlo ma ko te du mo mos nawlo nak kaddu yu mu wax. men da jotul tamit ndax jotul euh, kilifa ay yi nopi ci mom manam bañ ko tuddati wala baña baña bañ a mom mandu ci mom dal wa da ko dëkk da ko tas wax wax la rek. barke Serigne Touba Mbacke. ah mais ñooñu mën nañu ko la rek foofu la réew mi toll. Hmm. nañ gàtt sa rek kaw ko moom loolu la gis kilifa yi duñu wax ak moom booy ñooy wax ak moom waaw. fi kilifa yi wax ak moom. non du nit Modou Lo daf la wérul. Hmm. ñun topp ñu la si dara ñun duñ la topp ci dara yàlla moo tudd ñu war a bëre ak te incha allah dinañ la duma dina la daan. dina la woon lu doo dara barke alxuraanu karim dina la woon lu dara dina la woon lu doo tout sa làmmiñ moo rëy moo tax ngay wax barke alxuraanu karim waaw kii man mënu ma sax wax ci moom parce que am na wax yoo xam ne maanaam doomu aadama du ko génne ci làmmiñ nga toog ñëpp di la seetaan aan ay diw dof la kilifa. kaddu Pape yi noo ko gisee moom dem na sax ba ni yaayam sax jooy na ci mbir moom. waaw Pape Sarr lu mu wax rek ci ci ci Modou rek dama koy rafetlu. Hmm. waaw. lepp lu mu wax ci mo lor dama koy rafetlu. ah la mu tax nga koy rafetlu. waaw parce que eh, lu bon nak ah dama koy rafetlu parce que mo Lo ñu ko wax lu bon. Pape Fall Pape Sarr kon dimanche moom kilifa la am ay njabot tay bu demé ba yaayam du ci joy ya naqar na yaayam ko am na loo xam ne rafetul. Mhm. Eh, mais ben ko tamit mo Lo grawul quoi. mo Lo grawul manam mo Lo grawul mom li koy xaar xamnako hmm. ah mom la moom di moko dépasser ni motax lamb jan sa diggante mu barki Seydina Mohamed looloo ko dépassé. ah waaw. mais mais am ba ba ba ba nii Modou di di di li ma la wax. waaw ama du reculer ama du arrière barki Seydina Mohamed Modou Lo mbër te jour ba. mu daan fii champion nga du mbër. def fi def fi effet. li ma la wax yàlla ku yàlla. daan fi rek yàlla ko dimbali. barki alxuraanu karim. Ah, mais mbir mbir xam nga mbir koy sabab laata yàlla di la dimbali. waaw man loolu du mbër du dara. Lamine rek yàllaa ko dimbali nii rek. waaw hmm. noonu yàlla dimbali ñu ba jour ba incha allah. kon mbër ko ko dàq. ñoo ko ëpp lépp ñoo ko dàq bëre ñoo ko gën a doon bandi ci làmb ñoo ko ëpp lépp billaa walaay. Hmm. am na solo. waaw sant naa ci yow. waaw sant yàlla rek ah di sant. ani Père Jules moom tam moom déggoo ko coole bi bi bi Modou waxee ba léegi yaakaar naa tontagul. waaw mais Jules bu Ndaw waxee sant bi Père Jules talul wax. waaw Jules bu Ndaw mooy wax. kooku lépp lu mu war a wax rek dama ko koy waxal kooku dañ koy ñaanal jàmm rek ak gudd fan Jules Baldé sunu kilifa la sunu lépp la. Hmm. waaw ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm ak tawféex. di sant waa Pikine yep yep yëpp yëpp sama waa koñ sama mafia yi mafia suus comprendre nga gars al Alkaïda Pa Omar États-Unis Pa Omar Alman mang koy beugé bu baax ah Samba Balde ñepp sama mag jibi fallu ñepp sama yaay mang koy sant bu baax ah Mouhamadou bashir ah encore ah maa lay santaat bu baax a baax a baax billaay wallaay Mouhamadou Bachir ah borom baal di sant sama coach Jall Batora di sant wa Batora yëpp ah fu may entraîné di leen beugé bu baax a baax a baax waaw ah, di sant ñepp wa Pikine yëpp géwal yeeg ñepp ma leen di sant bu baax a baax a baax waaw ah, di waxaat Serigne Touba jere Serigne Touba di sant sama ben boy fils de bala boy bala bébé bala dimanche ah ak euh, Mor ye ma ngoy koy bu baax di sant wa ñangal punak nak tunu ñangal yëpp wa nga jëm ñëpp ma leen di sant bu baax baax baax wa mbal mi wa afele yi ah ñëpp ma ngi sant ñi may ñaanal ñëpp tamet ye Ama fu fum ne Ama la laaxatu. ah mom da nek si bobu rek. mais di préparer mi préparer bu mi préparer ah muri. bëri yan. ah mais am ah, mën nañoo xëy rek ne ko jour tel ngay bëre. Hmm. Eh, kon kay day nekk ci li war a nekk rek. dafa ne pare ngeen fépp muy Gris ak euh, Modou. waaw yow ñun pare nañ fépp Gris ak Modou ak ñeneen a ci yam ku ñëw rek pare nañ. Hmm. waaw jaajëf incha allah merci.